Cheikh Bara Ndiaye borom def gis yaa ngi ci Tektal TV dafa am lu ñu bëgg a leeral pour ñiy seetaan ñuy abonné di leen wax nag abonné bi nag kenn du ci fay dara lii ngay seen muy flèche bu ruus bi moom ngay bës lii mel ne haut-parleur rek mooy abonné bu ko defee mais Tektal dangay def Tektal kese am ñu def Tektal TV Sénégal Tektal TV Sénégal nag Tektal TV bi mooy collé Sénégal bi topp ci beneen bi nga def Tektal kese bu dee page Facebook bi page Facebook bi Tektal TV l'officiel fotoy Cheikh Bara Ndiaye ak léppam boo ñëwee ko fa fekk Cheikh Bara Ndiaye waxal ko ñu abonné ci Tektal TV. waaw maa di nuyu bi mu nekk ci réew mi réew di leen ñaan ñu abone ci seen bii di Tektal TV mhm. ak Tektal Sénégal Tektal TV Sénégal Tektal TV Sénégal ak Tektal TV mhm. ñaar yooyu na ngeen ko abonné ngeen defe ko ni ko Cheikh waxee mhm. nga bi mu wax noonu. boo ko defee xuruus fii boo ko bësee xuruus foofu noonu yi nga bës ko. waaw boo noppee am na lu collu bu ndaw bu nekk foofu. nga bës sa baaraam rek. waaw boo ko defee. Hmm. léegi dina la may di nga mën di am ay tegtal ndax ku jëm ciw yoon te xamoo fi nga jëm da ngay bëgg ku la tegtal. Hmm. seex nag moo leen di tegtal. Hmm. di leen andil ay nit ñu am maanaa ay boroom xam-xam yoo xam ne dañoo jàngi ba ñëw toog nit ñi di rang ay ay ay di rang fay xaalis bu seer pour gis leen. seex na di leen loqarti di leen indi fii di leen laaj ay questions yu leen kenn sañ ta laaj ñu tontu ay tontu yu am maanaa yu am njariñ mm-hmm. uh, bu ngeen ci abonné daal di leen a tax ngeen jege ay boroomi xam-xam yoo xam ne dinañ leen gindi mm-hmm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na fas alu ahla sikri in kuntum la ta'lamun di leen laaj ñi xam bu fekkee xamu leen mm-hmm. kon jëfandikoo loolu sax day bokk ci ngeen bés loolu seex wax Tektal TV Tektal TV nag suñu télé la di télé askan wi yëpp waaw Tektal TV di leen wax ne ñaari benn bi la maanaam lu dugg fii day dugg mais léeg-léeg booy seetaan Tektal TV simple émission yi fa lay njëkk a dugg léeg booy seetaan Tektal TV Sénégal émission yi mën na fay njëkk a dugg kon ñaar yi del abonné ñaar yëpp am ko lu dugg ci biir di ko gis te Tektal nag ñun qualité rek lañ soxla nekku ñu fi def tiit yu rëy nekku ñu fi bourse nekku ñu fi def lu ne liñ soxla mooy lépp lu fi feeñ doon qualité lu am njëriñ gis ngeen koor gi dugg nañ ci lu ne toujours duñ leen mas a wan lu ñuy xeebee wala lu ñuy yebee kon Tektal TV 100 pour cent qualité